sëñ bi Gris Bordeaux Balla Gaye 2 coow li bari na galaaj mbëre maanaam coow li bari buur mbirum lam moom du ci wax sama yoon nekku ci li coow liy bari bari ñoom seen coow la man du sama coow man li ma war te ma ne ci te muy sama digganteeg doomu aadama yi nekk ci jafe-jafe loolooy li ma war ngir fexe nu nuñ génn ci jafe-jafe yooyu mën a fàtte ci jafe-jafe yi nekkoon. kon sëriñ si wax ci làmm na. seen yoon nekku ci dañoo war a nekk ci yitte askan wi. ba nit ñi duñ wër di jàmbat di jàmbat di jàmbat ak jàmbataat dañoo war a fexe ba képp ku leen jàmbat ajo dootu ko jàmbat feneen ni nga xamee ni man ku ma jàmbat aajo dootu ko jàmbat feneen jërëjëf foo mbokk internet yi maa ngi leen nuyu Kamal sama waa ji boroom borom leer Kamal faj ko ci aaju bi wax dëgg yàlla nee naa man bokk na ci ñi ma sopp lool barke sëñ Mbàkke Madina ndax jikkoom mbaaxam ak dëggoom ak nangoom def lu baax dama wax ni que man ci ñaan yàlla nu ci waay mel rek man buur xam naa ndax client li ci yëpp man la ñuy woo waaye dégg gu ma sa way bu ñaaw wala xas bu ñaaw wala kalaam wax dëgg yàlla di ñaan yàlla yàlla yàlla saxal sëñ maam Cheikh Kamal nuyu naa la. waaleykum salaam wa rahmatullah alhamdulilahi awalun bila bidaya alhamdulilahi ahirun bila nihaaya ñi ngi sant suñu borom mi nga xam ne mooy njëlbeenug lépp lépp te dalewul fenn te du yem fenn di la wax buur bisimilah dellu di ñaanal ñi ne ci lali hôpital yi sunu borom yëkkati leen ñi caabi féete ginnaaw suñu borom taxaw leen waaye ñi dëddu àdduna suñu borom yërëm leen fañ nekk gënal leen fii ñu jóge di la wax buur bisimilah sëñ maam Cheikh du ñu tàmbali wax tamit dugguñu ci ñaan yàlla sëñ mam Cheikh li nga xam ne mooy wàllu ngóora dama koy wax chaque journée tukkal na àddina ñii dañ leen jox sunguf ñu essayé wala bu ñuy sëy lañ koy naan sëñ mam Cheikh lan nga def ak euh, loolu nga xam ne moom mooy néew kattan. waaw laaj nga lu am solo muy mbirum néew kattan ngóora moom nit mënu ko faj mukk te dajut dajut dëgg daj dëgg bu ñu ko waxee mooy euh, faw nga xam mboolem garab yi nga xam ni reen rek lay saxe lu ci ëpp meññati doo ko gis waaye reen bi day law di dem rek euh, faw nga xam itam nit ki néew kattanam googu lan moo ko sabab kon ñaara ngi noonu yu bokkul xaw ma ni xaw ma ñi nii dañ koy faj xam nañ yooyam xamuñu ko faaw itam buur nga xam nit ki itam ba xam néew kattanam googu ci sëy bu bari la ko jëlee walla ci jëfandikoo lu mu warta jëfandikoo mm. walla ci feebar boo xam ni daf koy faral di dikkal wala ci xeeti liggéey yu dem ba daja ci yaram yi ba attanatu attanatu ko faaw nga xam lu mu ci mën a doon buur mm. waaye lu mu ci mën a doon ñun dañ koy saafara ndax euh, mbir mu mën di doon rek danga koy jaar ci buntam mm-hmm. buntum ñaan mooy seet mm-hmm. wa aatul buyut min abwaabiha la alquran wax mbir mu mën di doon rek nañ ko jaar ci buntam loolu alquran wax jooju digg dégg bi dugg na fépp ndax tey jii buñ ñu woon dañoo bëgg dogal dara ci réew mi la ca jiitu des na wax ak njiital réew mi mm-hmm. kon bunt baa ngi noonu mbir yëpp nag dafa am bunt bu su koy jaaree. ñaan yàlla nag bu fekkee xam nga xam nga xam-xamee mën a seet seet bu wér mën a gis-gis bu wér di nga mën a dimbali doomu aadama bi dimbali gu wér. te doo ci surtout ñaan yàlla te mënuloo seet. déedéet mukk loolu mënul ne buur. mu ngi mel ni médecin bi ñu mën naa faj te mënul consulter. mi ngi noonu buur loolu munul ne ndax bu dee mën nga ñaan yàlla te mënoo seet loolu mënut ne ndax seet mooy tegtal bi lay tegtal nit ki lii ko dal la nag lan la ak nan ak nan la ko duggee ak naka ngay def ba loolu dañ ba mu fàtte ko. Mm. li fekk xamoo loolu kay problème a ngi noonu gaare. d'accord dëgg la. kon loolu mën a na cee jaare ba nit ki bu dee jooy wàllu ubbeeku wala umu wala cat su ko jàpp des na ko mën a seetal ba xam est-ce que ay sarax la aajoo wala des koy bindal wala. léeg-léeg nga gis nit yor fukki dërëm ni dafa bëgg ubbeeku. Mm. lu ne mu sangoo ko du ubbeeku xam nga lan mooy problème ba buur. dafa tëju tëju goo xam ni gàllankoor ya ko gaar ka koy ñaanal xamu ko moom ci boppam xamu ko mm-hmm. àggagut ci ko ko xam àggagut ci nu muy def ba mu deñ mm-hmm. léegi nag gàllankoor yooyu yi mu daje ci moom fees dell mu ngi mel ni ndab lu taq nga bëgg caa def ñam ni danga ko da koy jëfandikoo mm-hmm. da ngay sonn rek waaye doo ko jëriñoo léegi nag mbir yi noonu la demee moo tax buur mbir mu mën di doon rek bu ko doomu aadama bi seetul rek toujours mën na cee jëlee ay rëcc-rëcc te seet ba wér gën a wóor mën nga koo defee ci ramlu waaye lii nday mbir yi yëpp rek mooy listixaar kon sax mën naa tëj nit wala mu wala mu yàq yàq ay mbiram. waxum loolooy li gën a tuut ci lim man mën na sax ca mën na mën na gàttal fan wu nit cat mën naa àgg ca nit ki sax doonoon ku nar a texe cat jàpp ko ba mu texee di. Mm. yal na ci yàlla musal nit baaxut. Mm. baaxut ci dara dara dara dara. moo tax mel ni yomb te dindi. dafa mel ni. yomb yi dafa fekk bu jafee dindi rek dafa fekk kooku xamut lan mooy cat xamut naka lay dikke ci nit xamut nu muy def ba mu deñ waaye lu yomba dindi la gis nga gis nga adduna li muy rëy rëy rëy rëy ñi ñi koy doxale ci xam-xam te bañ koo doxale ci ci bëgg ñoo gën a réussir fépp moo tax cat boo ko jaaree ci xam-xam nit ki mën naa fàtte ne sax amoon na cat gis nga gumba buur bant bi muy yor di ko sukkootoo di ci dox mm. Mm. bu jékki-jékki woon xippi donte yor na ko téeméeri at mën naa fàtte bant ba mi ngi noonu. Mhm. macha allah muy lu ama ama am solo nee naa leen jotaayam nit ñi dañ koy nam wax dëgg yàlla ndax jotaayu xam-xam la ñun ñi ko xam xam fi mu jàngee xam ki ko yar xam nañu wax dëgg dëgg yàlla lii na ci dënnam bi di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla barkeel di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla saxal eh, sëñ bi eh, couple bii de dañoo bëggoon ku leen jubale ba seen sëy neex te amaana sax mën na bañ a jaare ci nopp wala foog ñu nopp leen pour que diggante bi war a mën a neex. waaw euh, man diggante bi mën na neex te nopp du ci am waaye bu boobaat rëccu mën na ci am ndax euh, alquran jàngale na ni harut ak marut bu ñëwee ci yaatal gi day jël sunu jot te jot amut tënk-tënk boobu ñi xam alquran dégg alquran xam nañ li ma bëgg a wax biñ ñëwee di xamal lenn ci nit ñi xam-xam boo xam ne day tàqale ñaar ñuy sëy muy euh, borom kër ak soxnaam mm-hmm. léegi loolu ba léegi am na ñu koy def fekk ñaari ñuy sëy bëggante rek ñu yàq ko léegi nag yow yow borom kër gi yow soxna si yéen ñaar yéen a war a jóg ci seen bopp fexe ba ku jéem ci yéen du leen mënal dara wala ku jéem ci yéen rëcc ko te dootu ko talati ndax am na ndomba boobu xam ni buñ ko joxee nit képp ku jëf ci yow jëf ju bon dana dellu ca moom kem ni mu jëfee ci yow jëf ju bon mm-hmm. loolu nag dafa am solo rawante nag ñaar ñiy sëy ni nga ko laajee waaye ñun dañ ca yor lool ñu ko defee ba addinay tukki nit ju mën ci ñoom dara te danañ bëggante bëggante goo ne ñoom ñaar dana leen jaaxal waaye loolu xam la loo xam ni bu ñu amoon problème sax ba ku ne jaar penkook sowwu waxtu wu dellu si mën na ko bañam kenn dootu mën a muñ sa moroom ndax cofeel gu jéggi dayo xam-xam dong la. xam-xam dong la sëñ bi mënuñoo dugg sëy te dugg jigéen ju taxaw ndax ñu ci bare ngi sëy fukki at fukki juróom yàlla mayu leen mayu leen doom te ku ne ne doom mooy ndëgër laay sëy. loolu defal naa ko mère boo xam ne juróom at yi tegal na yëggu dara. te dafa am borom kër bañ koy maye yëgu ko Touba la dëkk. mère juróom-ñett fukki at ba ma ko defaloon day am jëkkër. buur àdduna ndof dëgg doye di dëgg ñàkk xam dëgg weesuwul li munta ne euh, borom xam-xam yee ko wax nag nee nañ dof dëgg ñàkk xam dëgg réere dëgg jaahil dëgg mooy lii mënul ne waaye ku xam yàlla ak ni mu yaatoo bëri na lu am loo xam ni bu dul woon am gi mu am doomu aadama bi doo xam ni mën naa ne <laughs> mi ngi noonu nag dégg naa dëgg gaañee ngi jooy wàllu kayit ba tey léeg te man li ma jaaxal mooy sëriñ boo boo toogare da laan mën naa këyit te mënuma di man dañ koy jooy sëñ diw envoyé naa ko nangam ngir sama kayit man leen kamal sama waa ji bokk ci waaw loolu moom ba dina tukki du ci am ndax man mm-hmm. euh, damay bañ ko ma yàpp mm-hmm. te li ci jiitu mooy man ci sama bopp sama jëmm ji dama ko fonk lool mm-hmm. fonk gi nit fonk sa bopp mooy mooy jub fonk sa bopp mooy respecté mboolem ku yàlla bind. Mhm. te yàlla rek tax respecté nga bu dara taxee lu mooy yàlla rek respecté amu fa. Mhm. ndax nit ñi liñ gënantee mi ngi mu ngi nekk ci jaamu yàlla. Mhm. suñ borom bim ñu bindee. nit ñi gënante gi mi ngi ci jaamu yàlla sañ buur. waaye respecté doomu aadama dafa am solo moo tax am na yoo xam ni ba addinay tukki nit du ci dégg. ndax doomu aadama yi euh, ku xam fi leen yàlla teg da leen fonk ngir yàlla rek. te fonk yàlla nag dara du ci am. Mm-hmm. yàlla rek a tax dara du ci am. waaye est mm-hmm. yomb na yomb na kaw. jëfewut buur mbirum kayit jëfewut doomu aadama bi bëri na loo xam ne li tax mënu koo am mooy li ma la wax sànq. Mm-hmm. dafa am gàllankoor yu ne ci moom yoo xam ne moom xamut naka la ak nan la li fekk loolu dañun nag day sonn waaye du am mbirum kayit. du ko am mukk du ko am léegi nag gàllankoor yooyu bu deñee ñeen fukki guddi du ko jiggi mukk te amul kayit. ak lu mu mën a doon lu mu mën a doon. lu mu mën a doon rek lu mën a doon rek ndax buur ñëpp yàlla leen jaboote yàllaay boroom xam-xam yàllaay boroom am-am te moo dimbali lenn ci ay jaamam yi mel ni man ñu xam am man mën a def mën a dindi. mën hmm. mhm. naa dëgg. Hmm. leen kamal de bi ma ko xamee léegi mat na at fi mu dëkkoon la dëkk. <laughs> fi mu yeewoo lay yeewoo dëkkul fii tey suba mu dëkk fële waaye kamal euh, sëriñ si ngay dimbali ci sa xam-xam bii hmm. <laughs> te ñoom ñu ciy dund. waaw loolu moom <laughs> sëñ Buur loolu <laughs> euh, dañ koy sant suñ borom ndax yàlla mënoon naa def ñun ñu bokk ci ñii ñiy dimbali ko mm-hmm. waaye comme yàlla def na xam-xam bi ñi ngi leen koy dimbalee dama naan ñoom sax mm-hmm. euh, ñoo gën ñiy def lu baaxut ndax ñoom ñi nga xam ne ñi ngi ñëw ma leen di dimbali ci sama xam-xam te duma leen jox mukk lu dul lu baax mm-hmm. ñu koy jariñaat ay nit moo gën kiy joxe loo xam ni Euh, wala muy def loo xam ni xamu ca dara mënu ca dara waaw. loolu du yàq dara du wàññi ña la doon seet seet nangam ji jaar ci ñoom wala. déedéet déedéet man buur góoma loolu gis nga buur lan tamuta nafsun hatta tastakmil rizquha bakkan duroot mukk lu dul lim war a am daamat. gëmma loolu. te te te wa maa min daabbatin fil ardi illaa la llaahi rizquha suñu borom ku ne lam la wërsëgale ala kulli xaal da nga jot. sàcc bi sax wërsëgam da cay jot. Mm. nit ki lu dul wërsëgam du ko lekk. Mm. kawal li ma gën a yéem tey nag am naa occasion laaj la sa diggante ak alquran ak xasida yi. Mm. kawal neex neex neex mu ngi yàlla bi lu jataay xomb xomb xomb mu ngi ci xasida yi Cheikhul Khadim. laaj nga lu am solo muy sama diggante ak alquran ak xasaayid xasaayid jubluwaay bi day lu am solo te mooy bu njëkkee ci alquran bokk alquran mooy ummul kitaab mooy melaw sun borom. subhaanahu wa taala mi nga xam ni lu dul jëmmam jëfam la te lu dul moom amoon naa ay jamono amul moo ko amal mu doon loo xam ni bu ma xëyoon xëy jànguma ko sax day feeñ ci sama jëmm loolu yàllaa ko def te taqoo naag lu mat a taqoo ndax alquran moom nit yàlla yépp li ñu am ci lañ ko amee parce que it doon loo xam ni jubluwaay bi boo ko saxalee danga nga gën a fonk tagg alayhi salaatu wasalaam dana gën a leeral sa xol dana la gën a dimbali dana la gën a dimbali nga xam kan mooy yàlla mm. ndax sëriñ bi lim ci def lépp weesuwut tagg alayhi salaatu wasalaam kennal suñu borom subhanahu wa taala te lii mooy li nu fi ba mhm. macha allah euh, ngi lay contane di la ñaanal yàlla di wax looy tàggoo ak looy dénk jaam yàlla buur li may dénk doomu aadama yi mooy di leen ñaanal jàmm fu ñu mën a ne ci biir réew mi ak bitim réew di la ñaanal jàmm ci yittewoo gi nga yittewoo njariñal doomu adama yi di leen ko jariñ ndax bul jàpp ni mukk ak neen la ndax ko ci jariñu rek suñu borom dana la ci fay ndax al alquran moo wax ni wa amma maa yanfa'u naasa fa yamkuthu fil ardi ki ëppal doomu aadama yi njariñ mooy kii yàlla di gën a fay te mooy kii gën a yàgg fi suuf yal na jëm kanam